xamante na ñaari gone yi xamante nan xamante nan xamante nan ndeysaan lamb dàqul lii lamb dàqul lii Paul la ak bàcc Paul jël na ko jëliwaat na ko eh, eh eh eh sifflé na combat bu neex diggante Hercule ak Ndambe ndeysaan Ndambe nga xam ne miin na lutte sans frappe Ndambe miin na lutte sans frappe bi Ndambe Hercule ndambe de jëli na Hercule ndambe bëre ba daa gaaw ndambe bëre ba daa gaaw waaye kenn du Hercule ndambe bëre ba daa gaaw waaye kenn du Hercule keroog ca terrain gaal gi moom ndambe mi toj na ko ci animation ci bëre bu set bu leer bëre boo xam ne nii kenn xamul nu demee noonu jëli na ko jëli na ko takk na ko takk na ko daan na ko tan combat bu neex a nga ne le fene diggante Siteu la ak ak ku ma xamut eh Eh, Siteu jël na ko daan na ko daan na ko waa yow lii ak a gën a gaaw waa lii ak a gën a gaaw asalaamaaleykum mbokki amateuru lamb yi mbépp mbokki internet yi ñuy seetaan ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen nuyoo fii ci njaareem ci bawol capitale bawol nag buñ ko waxee mooy njaareem tey ñu nekk ci stade Elimanel Fall Bamba Mboup production ànd ak waa FILS di association pour la formation et l'insertion des lutteurs di Sénégal ñëw tey ci stade Elimanel Fall ci gala bu mag gala boo xam ne gis nañ li fi xew ci wàllu lamb ci lutte sans frappe nga xam ne njaareem dafa am luñ baaxoo woon mooy lutte boo xamante ne lutte avec frappe mais mbapat lañ koy wax mais tey ñu indi lutte sans frappe boo xam ne nii amul dóor simple la mais gis nañ mbër yëpp wuy si en masse mais amateur yëpp ñëw autorité yëpp ñëw aussi ñu dippe ko le ministre de l' emploi de la formation professionnelle et de l' artisanat muy monsieur Dame Diop ñu gis ko léegi mu ñëw donc gars yi lii moo xew tey ci stade Elimanel Fall lii moo xew tey ci lutte sans frappe association fils yi kon dañuy ànd ak yéen rek ci final yi a nañ lutte euh, lutte simple lutte simple am nañ ci ñaari catégorie lese di aussi lourd mu ñaari catégorie yoo xam ne tey seetaan nañ ko fi mais ndaanaa ni lamb mën nañ ne tase nañ fi dafaatin gis nañ ko ci kaw gis nañ fi yeneen gulwaar yi gis nañ fi aussi Garga Mbossé numéro 2 gis nañ ko gis suñu papa Mbaye Guèye mi nga xam ne moom magal mbëri kon jaajëf yaawu jaal aussi gis nañ ko fi mu def ambiance bu neex mbokk yi ñu dem seetaan li nga xam ne moom mooy finaali yi dellu si waat ko Nambe daan na ko. Nambe. ko sa morom yi fa nekk yëpp nga daan leen tey nga ñëw defaat la même chose. waaw oh, yàlla bu baax la yàlla bu baax la may seen ginnaaw rek. mais bàyyi sa yooyu lombe. may seen ginnaaw. <laughs> waaw lu waral dof dof lu ba pare boo dajee gars yi ci leen woon sa bopp. mais champion rek doom yaay liggéey rek. <laughs> ma nekk ma nekk ma nekk ma. non du loolu waxuma loolu borom terek dabam aussi mooy ndam bi dama. waaw <laughs> dama ne drapeau bi nga jël si. dama jël si. mais pourquoi nga bëgg fecc. fecc. boo moo lay branché. moo lay branché. moo lay alimenté. moo alimenté. tax nga taxaw. moo tax ma taxaw. moo tax nga tax ma def lépp. <laughs> malam ñaani li olof wax doomi mbër jàngil bëre tey ñëw nga ñaareem finalu nga. waaw sama papa rek. waaw sama papa. Ah. parce que bu ko neexee mu ne ma doo bëre. moom mi ma ubbi woon moo bëre. maa ngi koy sant ko gërëm. bi mooy sa première saison. waaw non daan béykat bu Mor Fadam Réfane waaw. non non non bëre simple bi ma ne bii mooy sa première saison wala daaw yaa nga ñëw njaareem. waaw tey ma ñëw njaareem finaalu. di ñaan yàlla suñu borom ma jël ko. yaa ngi doon dem bi. waaw man moom ci àll dëkk quoi. mais mais am naa trois combats arène Dakar. waaw. non waaw dégg naa ko nii rek. mos ngeen a bëre. nag. waaw seetaan naa ko mu bëre. waaw dina neex quoi. dana metti dina neex trop. waaw ma waaw maa ngi ko da seetaan naa ko léegi. waaw moom da lay jéem a daw di la dugal naax di la jéem a kal suuf waaw. waaw yooyu lay jéem a def quoi waaw. non man dooy mbër laa ñii ñëw sama papa ñoo doon ànd. waaw kii sama gain la booy Mbaye kii mooy Paul Maurice. waaw moom lépp moom moom ma jox paas nu wax ma lam gi ma demal barke alxuraan dem heure bi laal bi la ma woo ma kaa paas bi nga dem. ma toj laa ko ah ma ma bëgg koo toj tojagu ma ko waaw. waaw waaw dama bëgg a toj lépp waaw lépp laa bëgg a toj. jërë jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokki internet yi tey comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñëpp xam nañ ne ñu ngi ci njaareem àdduna bi yëpp xam nañ ne ñu ngi ci bawol waaye nag bawol boo ñëwee da jaar ci bunt bi. boo bañee réer ci kawi kàddu wala nga bañ a réer cim xel damaa toog koo xam ne dictionnaire làmb la làmb lu ko réer ci làmb rek xamal ne loolu amul njariñ te lu mu la wax ci làmb loolu téere la boo ko takkee di nga ci gis firnde Père Xawsu man maa lay présenté làmb njaarim xam nanu la Ndakaaru am nañu la jot a xam waaye ay bi ñu xamoon lii ne la si sa bopp bi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Bas euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan wasaare lambu. di la jaajëfal di kontaan si yow nag waaw di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne bii tamit ñoo teew tey jii ci bis bi bas. Darxawsu ñu fekk si la sa dëkk gone yi di bëre sa kanam nga xam leen miin leen am ay gan yu ñëw waaye yow ku bëre sa kanam doonatul gan ndax da ngay xam la mu daan bëre démb ak ki démb nga gis gone yi ci lese bi ñu bëre ba àgg final final ba nekk diggante euh, diggante Mburoog Ndambe ak ki nga xamante ne nii moom mooy doomu mbaartin bi. loo mën a wax tey en résumé ci ci ci combat simple yi wala ci euh, combat poids léger yi. waaw li ma ci wax mooy euh, euh, lu jaadu la parce que bu ñëwee mu réew Ndambe di mbër moo xamante ne bii drapeau chef de l'état moom lañ jëloon yóbbu woon ko fële ca ci poids bi nga xamante ne bii moom lañ doon bëreel dem na ci ba final kon yaakaar naa tey bu ñëwee fii tey final ci poids léger bi loolu lu jaadu la bu dajee koo xamante ne bii tamit doomu mbartil la. doomu Mbathine ku na xam na ni waaw Malem Niani numéro 2 ku ne xam na ni champion la ndax doomu mbër la te it doomu mbër yàgg nañu wax jaajël bëre ndax yàgg-yàgg dinañ këf sa tànk des na la a kon yaakaar naa ne bu ñu finaaloo ak parcours bi ñu def muy parcours boo xamante ne bii euh, lu ñu yàgg def la na xale yi def final tey dañoo compétir suñu compétir woon bi ñu daan ñu daan doomu Mbathine fi mu jaar ka gënu koo metti boo xoolee bu doon nande éliminé na ñaari mbëri njaareem. yoo xam ne tey fii ci diwaanu Ndiarème kenn mënu leen fii moo moo éliminé Hercule moom moo éliminé euh, Siteu mooy euh, euh, champion bi nga xamante ne ku ne xam na ko fii kon yaakaar naa ñoom ñaar ku ñu dajee ci final bi ci poids léger bi lu jaadu la ah ndax yaakaar naa ne lamb lamb moom lamb la moom il faut da ngay compétir pour nga mën a jàll mais su fekkee ni defoo li nga war a def boo ñëwee ba ci. premier tour maanaam premier combat deuxième combat ak troisième combat euh, Fatigué day ñëw waaw joona day ñëw bas loolu la. waaw bu fekkee ne dañuy siffler final bi ñu seetaanandoo ko bu fekkee siffler wuñ ko aussi ñu àgg ci àggale rek li nga xam ne nii moom mooy poids bi ndax gis nañ poids lourd bu neex malgré mbëri bëri wuñu mais combat yi neex na. waaw bas euh, combat yi neex la dëgg la mais nañuy def lañ daan def rek. ah parce que bu ma xoolee doomu baatin bi muy Malem Niani numéro 2 diggante ak Ndambe jàpp ma ni Malem Niani mën naa génn ci Ndambe waaw jàpp ma xam nga rek man moom la ma daan def loolu rek laay def li ma gëm moom laay wax damay wax li nga xamante ne bii man moom laa gëm te naka jekk su ma ko waxee mënta ñàkk noonu a lay demee xale bi mën naa bëree lool mais ki nga xamante ne bii moom mooy mbirum Ndambe fa mu yegg ci wàllu làmb xale bi yeggagu fa. loolu moom moo tax mën na am mën naa am victoire nag mais lu may bett lay doon bas lu may bett la. waaw yow de loo ñu a wax ci làmb ñu teg ci suñu bët. te fii ba Ndakaaru. waaw fii ba Ndakaaru. amul mbër muy sampu maanaam di takk ngemb euh, tekki dara ci làmb ci te xaw ma la xaw ma la ngay bëree ci mënti doon bas ba mu saa jox micro. dégg ma micro ni ma commencé am loo ca am la la cay wax mën naa am du dañ parce que loolu moom. jànguma ko fenn suñu borom ma ci may bas. donc père xaw luur bi waaw luur bi euh, ki nga xam ne moom moo génn xale la boo xamante ne bii yaakaar naa ni euh, mu ngi jógee mu ngi dëkk Ngoundiane moo toj Ngoundiane toj na Ngoundiane euh, jóge Ngoundiane dem Ndakaaru écurie Pikine la nekk di xale boo xamante ne bii fàtte naa turam mais seetaan naa ko ba tàyyi ci mbapat yi muy def ay preuve kon yaakaar naa tey bu ñëwee final war na ki mu war nag ñëwagul. ndax actuellement mu ngi bëre li xamante ne bi moom mooy demi-finale am qualifié waaw Père Xawsu kon léegi loolu jeex léegi final lese bi léegi ñu sifflé ko en ci say kaddu ndambe moom mooy favori parce que xam nga ko yàgg naa bëre sa kanam doomu mbaar ci mbir xam nga ko waaye ndambe ay ndambe ay ndambe mii ko ko tuddee daam di bawal bawal waaye xaatim mii ko ko tuddee di bawal bawal. yaayam a ngi nii toog Fatou Mbuub la tudd ndey Njaay ko jur Latigay Njaay mi ñu tuddee woon mii a ko jur ndey Njaay ko jur Maguette Diop a ko jur Maguette Diop ak Maxtaar Koddu Diop ñu bokk ndey ak baay Maxtaar Diop nag fi la booy tubaab ak ñoom tubaabu Jol ak ñoom booy maamam moo nekkoon président CRG bu Diourbel ci lutte moom Matar Code mi ngi xam ne mooy nijaay Ndey Njaay mi jur Fatou bu mu jur ko mu walbatiku nag bi ko Matar Code yoree ko jox ko ku jox Ablaye Fall Samba bi leen finance préfecture xam nga ko te la jóge nag bàyyi jox ko nijaay maam di jox Mandiaye Fall mu ay meeru Njaay maamam la mu ne ko président CRG ba mu bàyyee nag lañ ko jox ku jox Ali seen ak Cheikh Diouf ba tey jii Mbay Jaw yor ko mi nga xam ne bii mu jëw xujja ji mooy bàyyam waaye daam gàcce ngaa lama jërëjëf siggalati nga bawal lii mooy siggal sa bopp xaadim su jógee am xalaat bu rafet ni président dafay jàppale président Macky Sall ci li nga xam ne bii mooy emploi moo xam ni mbër yi am licence yëpp mënuñu am combat danañ toog at duñ bëree wala ñu toog ñaari at duñ bëree wala ñu toog ñetti at duñ te dañuy entraîné rek di entraîné di lekk di naan wala fekk seen soxla te amuñu bu combat kooku bu yàggee leneen feeñ. Ah, dañuy wax bis bi dëgg-dëgg li ko waral. xam nga su ministre jógee jëm ci làmb ku xamul da nga daan ministre ma nga jëm fa ñuy fooy déedéet ministre fowut foluwul kilifaam di président fowut foluwul dëgg la mbër yii li leen tax a jóg xaadim bamba mbuub mii jiite ko mooy président la daf ne nañu formé nit ñi waaye bu ñu formé nit ñi ba ñu am métier nañ leen financé accompagné leen accompagné leen mu ngoog président xam na nag gor si di daam joon yàgg koo jàppale mu wóolu ko dénk ko ko ah suñ ko waxee xalaat boobu nag mu sol dàllam ki ko wax di promoteur bi di Bamba dëkk boon waaye mu ko waxit dëkk boon ñu ñaari bool bool kii mu waxit dëkk boon naa ne sene àdduna ko raafan bool dana des ndax lu ko waral sëñ Bamba Xaadim Rasulu fii la def fukki at ak juróom jumaay sëñ Bamba fii kër sëñ Bamba fii doomi sëñ Bamba kon nag bu loolu amee tey jii président am gis-gis waaye ministre Dame Diop am gis-gis ne mbër yi nañ leen former waaye suñ leen former dañu ci yem dañ leen di former ba pare financer leen loolu nag loolu tey jii mooy taxawaay bi moo tax bu nit dégg lamb rek ne dañoo tase stade Ely Manel di fo di fo foofu ne de dafa ñëw ngir jàppale mbër yi ñu former leen suñ leen former ñu am métier financer leen loolu moo waral bés bi alaaji baara jërëjëf dañoo bëgg bala moo jël parole ñu def une minute de silence waaw parce que lamb dafa ñàkk ku mag koo xam ne kii mooy làmb bam cay toll daan na bëre ku ne xam na ni du sekk du duyaay kat yi daan na bëree waaye daan na woy daan na xumba làmb ndax kenn mënta wax làmb te waxoo géwél géwél ay tëgg géwél ay woy ak booy ñang booy ñàgg ak ki nga xam ne kii tubaab fakal la mooy mag yi bombardier di Pape Diak tey di fàttaliku booy ji nga xam ne su làmb ma saa mooy taxaw fii di wax kon ñoo ñu leen ñàkkee tey gi ñu taxaw làmb ministre de la république toog di doomi bawal di daam Diop nga xam ne Moussa Wade Diop kajore bàyyam Moussa Xel Fatou Moussa Xel Fatou borom war nañu def une minute de silence ñëpp taxaw ñu màggal ñooñu fàttaliku leen ñoom booy ñàgg ñoom Doudou Diop yaaykat yi ñoom booy Guinée ñu def ñëpp jóg taxaw s'il vous plaît ñu doog a jox Lam Diop kàddu gi jox leen taxaw s'il vous plaît na ñëpp jóg taxaw ñu def. maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm organisateur yi def lii fii tey ci Diourbel jàpp naa li ma ci bëggoon wax yépp wax nga ko yaag alaaji baara donc kàddu fàttali la rek ak kàddu sant fàttali bi mooy li waral lii kuréel bi ñu tuddee formation insertion des lutteurs sénégalais te xaadim mii jiite ko ànd ci ak suñu mag alaaji mbay gay ak euh, doyen Boy Séer damay wax doyen Boy Séer Ndiaye dañu am li ñuy def nii mission de service public la ndax bu ñu toogee xalaat ñi nga xam ni ñooy ay lutteurs nekk ay jeunes sénégalais Khadim mii jàpp ne ñi nekk ay lutteurs ñëpp mënuñoo bëre grand combat ñëpp mënuñoo nekk ay Boy Séeréer ñëpp nekk ay mbay Guèye ñëpp nekk ay Tapha Tine ñëpp nekk ay Tyson wala Modou Lo mu jàpp kon ne ñooñu nekk ay sportif war nañ leen jàngal métier ñu ñëw seet ma wax ma ko ma rafetlu ko parce que président de la république moo wax ne fu ndaw nekk ci Sénégal fekk ko fa jox ko formation professionnelle ndax dama koy wax souvent di ko fàttali Sénégal liggéey la xale yi di wut mais liggéey formation moo ko jiitu mooy joxe métier. loolu moo tax président la république jël alal ju takku def ko ci formation ndaw ñi bi ñu ñëwee seet si moom moo rafetlu ko parce que fii njaaree mooy départ bi parce que tournée nationale la li ma fasante ak ñoom mooy fu ngeen dem ci région yi nañ leen gunge li jiitu lamb ji mooy ñu daje ak mbër yi nekk ci région boobu recensé leen xool formation yi ñu bëgg a def ñu defal leen formation gunge leen ni ko président bëgg. jërëjëf mbokk yi final lese ba ngoog diggante Mburok Ndambe ak Malem Niani numéro 2 Malem Niani jël na Mburok Ndambe Mburok Ndambe kay mboot mboot na ko tëral na ko daan na Ndambe mboot na Malem Niani. voilà mu ngi noonu ci final lour bi la ñu nekk final lour ba ngoog final lour nekk noonu. Cheikh John Abdou Cheikh John Abdou Tine ñu ngay jàppante ñaari mbër yaa ngay jàppante ñaari mbër John dafa mel ni ñoo xamante Abdou Tine Cheikh John dafa mel ni xamante nan attention Abdou Tine John Abdou Tine Cheikh Dione dafa mel ni xamante nan takk na ko daw na génn na daan nan ko par avertissement. waaw. maa ngi doog a ñëw fii tey nag. Ah. waaw. mais yaa bi. waaw maa ngi bëri si àll bi jël foofu ay nag quoi. Ah waaw. kon kon kon lii waaw loolu lii moom mérite la moom. kontaan naa si torop waaw. du ko góotee rek bi. déedéet non Dakar nag. Ah, ci àll rek laay bëri waaw. non léegi rek xam naa léegi rek. ne Dakar am nga fa sa place. waaw am naa fa place moom wax dëgg gars yi bëri Dakar ganuñ ma ko wax. après dinaa leen fekk foofu. waaw ñu sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee fekkee ak tal euh, may ñu euh, réussite bii nii kon ñu ngi ko ci sant di julli ci Seydina Mohamed euh, di sant waa Njaareem yëpp dalal gi ñu dalal di sant ministre Dame Diop mi nga xam ni mooy ministre la formation professionnelle de l' et de l' Euh, ñun nag li ñu tax a jóg mooy dëgg la gaa tëgg nañu gala mais dafa am loo xam ni moo ñu tax a jóg en fait man maay président association FILS tudd euh, sama sama label di Bamba bu production FILS nag mi ngi signifier la formation et l'insertion des lutteurs du Sénégal bitim réew laa nekkoon def naa fay at bi ma demee bëgg fa liggéey sécurité bi ma demee à Rome global consulting bi nga xam ni falaa demoon bëgg faa liggéey dañ ma ne il faut nga def formation ba pare ndax nit waroo liggéey te amoo formation ma def formation boobu noonu muy sécurité garde corps rapproché ba yàlla def ma am ci réussite bi ma toogee dafay at ci laa bëgg ma bëgg làmb lool nag ndax boo juddoo Fass màggee parcelle di doomu Bawol da ngay bëgg làmb ma ne jot na ma ñëw sama réew li ma sama sëriñ bi wax bu baax bi wax rek si ñëpp mu sëñ Fallou dama ko seeti waxtaan ceeg moom mu ne ma li nga wax li def yaa ngi naan da nga réew yàlla ngay jàppale ndax mbër moo ci dimbali mu am formation mën a am xëy am métier jàppal ni tey lu mu mën a fayeeku di ci dimbali waajuram kooku yàlla ngay jàppale looloo waral nag tey lii nii du question dañoo tuddee drapeau Dame Diop dañoo lënkaloo association FILS ak ministère de la formation professionnelle comme partenariat war a liggéey ñu nag moom ak la direction de l'emploi ak waa ANAMO ñëpp boo seet samedi passé rek def naa ak waa ANAMO benn formation 31 boo xam ni en sérigraphie la Dakar une semaine lañ ci lañ def ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi sa attestation de diplôme loolu la ñu bëgg def ko Sénégal gi yëpp tey boo gisee ministre message boobu la doon lancé pour mbër yi nekk Jurbel ñu jéem a ñu ñu jéem leen a recenser def benn forum xool na leen leen di former xool na leen leen di jàppalee ba ñu am formation ni ko ministre waxee formation yi dafa am solo tax eh, boo amee tey sa attestation tey bépp liggéey booy wut si sa la naan attest ban ban ban ban ban diplôme ci am tant di ko gërëm bu baax di gërëm waa CRG bu Diourbel bu baax di ko jiital ci mbay jow Etienne Ngom ak directeur u bi franchement di Cheikh Diouf ak ñoom Baara Diop taxawu nañ ma ci bës bi ba am na réussite totale di leen gërëm yéen aussi presse bi di gërëm di baral gërëm sama rakk bi Bas mm-hmm. ndax franchement Wassare Lamb mm-hmm. Bas li tax ma fonk ko bëgg ko man ak moom a yem man dama sonn ci affaire bi di ci dépenser suma xaalis li ma ciy ñàkk kenn mënu la ko wax mm-hmm. mais lépp àdduna volonté ak ngor ngay jiital après yàllaay ñëw li may def ma ci am amour 2011 ba léegi maa ngi ci bi ma ñëwee gis ni président bi fi nekk jar na jàppale xale la ma gis ni mbëri jar nañu jàppale ay noble lañu ma ne naa leen gunge mais Bass tamit maa ngi koy remercier di leen remercier yéen waa Bawol TV je crois maa ngi ak CMGM TV CMGM TV maa ngi leen di gërëm Bass ma lay encouragé di encouragé su mbokk presse bi yëpp xamal leen ni ñun yéene nañ leen lu ne parce que suñu liggéey yéene ko mën a jàllale fu ne man nag nekk naa nit koo xam ni li ma bëgg di am di ko partager ak ñëpp loolu laa bëgg presse bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni njaareem ji ñu ñëw sama dëkk la parce que man surtout Demba maam Ndiaye laa ak Baba Coumba Ndiaye mm-hmm. moom la Sambaaw doon wax sama maam ki jur sama jur bu jigéen moom nañ njëkk a tuddee hippodrome muy Laati Gueye Ndiaye kon damay fier pour ñëw fii di gërëm Moustapha Tine bi fi ñëw tey mm-hmm. parce que mbër yëpp naroon nañoo ñëw mais daju dut sekk yaaykate bi mm-hmm. ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana moo leen empêché tey ba ñëwuñu di gërëm Baye Gueye la Tigre di gërëm ñëpp di leen gërëm di leen nag wax ni fépp fu ñuy dem ñu ngi leen fay xaar bu ko defee ngeen accompagner ñu ci ci kàttanu yàlla fin de budget bi rek moo tax sponsor yi ñëwuñu moo tax affaire bi xaw a sooxe waaye nag pare nañu pour ànd ak yéen liggéey ci lépp ngeen topp ci ginnaaw bas rek parce que franchement mu ngi jàpp bu baax di leen sant di leen jaajëfal. Ah, mbokk yi jërë ngeen jëf yéen mbokki internet yi nga xam ne yéen a ngi topp ci wasaare lamb ñu ngi woon tey ci stade Elimanel Fall bu Njaareem ñu nekkoon ci lutte sans frappe tey xam ngeen Njaareem dafa am lu baaxoo dafa am lu tàmm muy lutte avec frappe wala bu ñu defee euh, simple aussi day doon dóor mais tey lutte sans frappe la def Bamba Mbuub ci gala bi nga xam ne moom la ñu tuddee monsieur le ministre Dame Diop mu nekk nag ñi dox ci formation di dox ci insertion war de def tournée nationale njëkke ko tey ci dëkku monsieur le ministre Dame Diop njëkke ko ci Bawol ñu gis champion yëpp suñu papa Mbaye Guèye mu ngi fi premier tigre de Fass Tapha Tine mu ngi fi Yaawu Jaal mu ngi fi mbër yëpp ñëw nañ bëri nañ euh, ci jàmm ci salaam le meilleur a gagné muy Mbaye Tine donc gars yi cant ngërëm ñeel na leen kàggu maa ngi lay sant la gërëm ci loxo bu set bi jaajëf gars yi fii la woon ci stade Ely Manel Fall ñu leen jox dig daje fan yu néew ci wasaare lamb jërë ngeen jëf